ilaay sa way dóor ma de ma ñëw kii bu ma gëm tas maanaam jëmmam woote bi doon séddale kii la wax naa leen ko sama maam Limaamu du turandoo moom mm. déedéet moom la wérdul ba yaramam tàng mu délire ne mooy moom du ko wérdul ba roxo moom du dugg ko mu ne mooy moom du

waaye ëpp nañu junni nu gis-gis bi xam nga sëriñ sa daan a xaar waa di seeti baay ba tur ci ñaan daan la ngeen borom leer day iseete bàyyi laay ba tëb ci ñaam na mbéyante baa borom ree man day damaay ne ka ree ne ka ree nee na saxsan kabaar jëmma laa gis ju mët sëkk ànd ak ay leeram leer ya mët sëkk foofu la jógee mu ma ñëw ngeen lii may wax nii ku ko bindoon sa àll yii lu rëy la fi mag ñi bàyyi fonk leen ko al amrul ahzam yàlla moo ko tuddeel boppam فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده إن الفضل أن أنذروا أنه لا إله إلا أنت

leen ma de ñëw na ñëw luy ñëw la ñëw ga wér yàlla wax ak nit ñi wax ak lu teew daal ne attaque conjugué verbe ba ci lu paase attaque ñëw na ba pare fekk li muy wax moom mu ngi koy séen am na attaque ñëw na ba pare alhamdulilah ba ca famaya ma ne aaya la ci mën a nekku seydina limaamu alayhi salaam muhammadan xayra xalqillah lan moo njëkk xalaqa samaawaati wal arda bil تعالى عما يصفون am na lu ma ubbi tàppaleen ma ngi dem rek moo tax maa ngi dugal rek waaye mënatu ma ko téye la daa déggal bàyyam yaa Yeah. gas daanu na maa ngi denc rek ay mën a dugalante yàlla

dañ jënd ko defee du moom mu ne nag ba jiinum yàlla raw leen li ma fi ñu am ak teel da ngay yeewu jënd sa bàmmeel taxaw yàlla ne la ba ma yónnee maa di loo ko gisee mu ne ëllëg teel la ilaha illallah ñu laaj leen fa saam saam alaxira ak wàllam ak wuyu wallu wallu walla ay ku bañ tey nga dee ku bañ tey nga dee ah, yaa wóor fasaa ak wallam digee loolu ak wallam ak wuy digga geen ko wuy walla denc naa ko denc mu doon Cambérène ay waa Bargny am ngeen problème la ilaha لا اله الا الله بحرا عميقا واسعا مصفا شرابه ليس يروي خلق زمانه ورزقه بحرا بحرا عميقا عميقا واسعا واسعا مصفا شرابه شرابه ku def kant kant kant noseen noseen xam nga day exposé la atelier nga analyser dellu si déglu leen bu baax yaa bind asamaan ak suuf bil ak doo morom benn ay solar di maa ngi ñëw du asamaaw la bindax suuf teg ca xalaxal insaana min nutfatin fa idaa huwa xasiimun mubiin yaa bind nit ñeenti waxtu asamaan nit wal an'aam jur gi ñuy lekk jur gi yaa ci bind nit ñi am ci lii lakum fiha difkun mala bi nga yor ci kër gi diñ ci lekk mu jox lay kanoon bu sedd ñëwee du la gaañ da nga jël dex bi sàmmoo der du la gaañ da nga jël dex bi def bu booba der du la gaañ difkun